nee na lam waxoon doomam yeeg sëtam yi. ni leen. ni leen. li ma sëñ Touba jiital ci yéen. li ma dama koy àndak ak dama koy ànd ak rek. ci kaw. ci kaw. ñi ji ñi jiite moo ma jiital. ci kaw jiital gi ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. bu ma jiitoo bu ma jiitoo. dama leen di geesu rek. bu ma leen séenul taxaw nag leen. bu ma leen séenut it di taxaw nag leen rek. bu ma seen seen gisuma leen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje daje ak yéen. waaye dama leen di jël topp yéen. waaye. kon kon kon bu ma bu ma dajee ba jël leen damay dëpp bu ngeen dëppee damay topp ci yéen. waaye bu ngeen dëppee damay wàññi ko wàññi ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo mukk. loolu nag. loolu yàq waaye damay bu ma jiitoo. Mm-hmm. dañ yàq diine maa mu yàq taay yàq addina. Mm-hmm. du ma waaye man de bu ngeen ma jiitalee. dara lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addina du ma ko def mukk. waaye waaye may doxit nag. dama leen di waaye bu may doxit di leen geesu rek. bu ma leen gisut it nag leen rek. bu ma seet séenoo seen gisuma leen ma ma ma wàññi ko ma wàññi ko wut si leen. bu fekkee ngeen dem ma jiital leen topp ci bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen. waaye duñ tàggoo mukk lépp ñun ñi ñëpp nag tàbbi mu ci biir lool nee na du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko. nee dara lu yàq àddina wala diine du ko def. du jóge ci moom mukk. ànd maa yow jaam ñi. te yërmande leen war a nee li ci def nag yàllaa yori jaamam te yërmande li leen yore. yërmande joojee nag day ñaan mu yokk rek. te yaatal ko lool. yërmande gi ak yaatal gi day ñaan mu yokk. yërmande gi yaatal gi day ñaan rek mu yokk. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. ñaan bu baax waaye ñaan leen nee na mi leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ko ñaanal bu baax. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. nee na mi ngi leen di bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax. nee na nag mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax waaye yéen na ngeen ko ñaanal bu baax.